salaamaaleykum. Amen. ngeen di wax da ngeen di bàyyi ngeen di wax bàyyi leen li ngeen di wax da ngeen di bàyyi seen bari ñi ngeen koy diri loolu nga def secours mais mais mais bàyyi leen ko rek affaire bi jeex na léegi

lañ koy moom moo ko wiise carrément sama tànk daal la ma koy dóor. d'accord moo moo moo moom la loolu noonu la. depuis la depuis huit yooyu la xaw naa naaj rek. ay ay mooy yooyu la rek huit heures mooy yooyu rek. ki ñu évacué nii depuis huit heures la ñuy woo ñuy woo ñuy woo sapeur ba léegi ñëw ñu ngi soog a ñëw. kenn ki dem na ci sapeur yi bon dañ dañoo woo suñu ambulance dañoo luyee ambulance boobu moo war a ñëw jël si kii ñaari blessé yi am na suñu beneen blessé boo xam ne tamit mu ngi police te dañ ko waroon évacuer yóbbu ko mais yóbbu nañ ko police waaw waaw mu ngi police ah? ñun nag sànni wuñu xeer defuñ dañoo toog ñoom ñoo ñu song sànni ñu ay lacrymogène euh, ñun dañoo ñëwoon rek pour toog ñaxtu suñu alal ñun musuñu xeex musuñu yàq musuñu sonal kenn suñu alal lañ tot ñu ñëw di ñaxtu gagné nañ ko première instance gagné deuxième instance ñu dem cour suprême daan ko mooy Babacar Fall uh-huh. ñu war mu war a ñu door ko ay amende war ko tëj deux ans de ah, prison ak contrainte par corps euh, mu osé toog këram di def conférence de presse naan dinañu plainte waaw oh, prisonnier nan lay plainte ñu mu tooñ ñu bàyyi ko ñu ko tëj ko ñun ñu ñëw toog pour jot suñuy terrain ñoom ñu ñëw fekk ñu ñu toog ci dal ñu dóor ñu ay lacrymogène ñun ba léegi songuñu leen waaye nag yàlla mu ngi fi mm-hmm. yàlla rek moo fi nekk. waaw keneen new fi. Mhm. leneen new fi lu dul yàlla. Mhm. ñii bu ñu bu fekkee am na lu sedd seen xol ma xam ne ay mbër dëgg lañ ñaata victime ñoo dee si ñun ñii xam nañ sam pap moo daw ci terrain bi ba xëy noppaliku fii benn victime ñëw na fii naqara ko daaneel fii si terrain bi mu dee muy fàllu galas yal na ko yàlla maire Binta Ndiaye Binta Binta Ndiaye conférence de presse eh, fan yi la dee ñëpp ay naqar waa léegi ñun ban dëkk lañ nekk euh, euh, est-ce que ñun ay euh, sénégalais lañ ñun de loolu la ñuy laaj est-ce que ñun ay doomu sénégalais lañ wala suñuy njiit yi est-ce que ay sénégalais lañ sa askan yow ñu tooñ la duma la fii rek la am ñun dañoo woon toog pour état jóg delloo ñu suñuy kër dañu toogoon pour xiifal ñaxtu ñu delloo ñu dégg ñu delloo ñu suñuy alal wax dëgg yàlla ko ñëw muy def loolu nga war ko masawu ñëw di ko dóor ay lacrymogène li fii rek la am. di ñoo doon dóor lacrymogène waa police. police ñoo ñëw dóor ñu ko ñun songu ñu leen defuñu dara dañoo toog ñu ñëw def ñu ko waa ñu ngi sant yàlla nag bàyyi prisonnier di dóor ñoo xamante ne si dañ leen yàqal jël sa alal tooñ la dóor la duma la fii rek la am Sénégal amul fenn. tur bi naka la sëñ bi tur la. ah Ousmane Ba. laa tudd waaw ci collectif Gadaay waaw. merci di leen di sant di leen gërëm waaw. tojoon nañ suñu kër te ki ko toj li ci gën a doy waar mooy Descos la àndal loolu fu ñu fu ñu wax rek dañuy bëgg fësal loolu nit ñi xam ko waa ji bu doon moom kese la ñëw du toj suñu kër ñemewu ko sax mais Descos la àndal ñëw toj suñu kër. bi ñu demee tribunal ñu gagné ko première instance gagné ko deuxième instance gagné ko cour suprême 19 décembre bi passé mooy àtte bu mujj bi ci la jox suñu décision de justice juróom benn weer boobaak léegi waa ji mi ngi këram kenn jàpp ko fayuñu mi ngi jug di xëy di dugg ci dëkk bi mi ngi dem tribunal mi ngi dem cour suprême boobu nga xam ne sax moo ko mujjee àtte mu doon lu doy waar léegi nag euh, bi loolu yëpp amee fekk sax lu ko jiitu état dalal nañu wax dëgg yàlla ci ay yoonu yoonu yoon palais dañ faa jaabante ba miir yi palais yi miin nañ ñu Euh, directeur de cabinet daf ñu waxoon ne na ngeen xam ni seen coono jeex na na ngeen xam ni sama kàddu yi may wax ak yéen du sama sañ-sañ du sama coobare président Macky sàll moo ma jox ndigal ne ma dalalal waa gàddaay ci nu mu gën a gaawee ñu régler seen problème définitivement keroog ba ñu waxee ak moom bi ñu génnee dañ doon ree parce que daf ñu xamal ni ay jàmbaar ngeen ay républicain ngeen vraiment ay nit ñu ñu gore ngeen parce que ku toj sa kër toroxal la juróom-ñaari at ngay topp ci ginnaaw du daw ngeen muñ kenn musu leen a dégg ngeen coow kenn musu leen dégg ngeen lakk dara vraiment na ngeen xam ni euh, am ngeen ngërëmul état du Sénégal tey ñu ñëw di laaj lu dul ñu appliquer décision de justice du laaj lu dul ñun suñu terrain yooyu nga xam ne tojoon nañu ko ñu delloon ko ñu dëkk suñuy kër loolu képp moo ñu fi indi tey xeexuñu xulawuñu dóoruñu defuñu dara bi ñu ñëwee dañoo lal suñuy basang teg suñu baas paisiblement respecter mesures barrières yëpp parce que loolu yëpp fàgg woon nañ ko mais à notre grande surprise dañ koy wax mu leer police yu yëmbal moo fi ñëw bi mu fi ñëwee na da ngeen di tas jotaay bi ah occupation nangam sangam ñu ne ko nag wax dëgg yàlla fii mu toll nii nag dañoo sës fii fi jugee tant li ñu war a régler régler wuñ ko ci la ñu commencé di ñu dóor lacrymogène di ñu xaañ di ñu di ñu di ñu sànnanteeg ñun xeer mu doyul ñu woowi renfort gis ngeen li fi nekk char de combat sax génn na fi tey seen caméra yi dina ko génnee loolu yëpp ci ñoo xamante ni ñu lu dul ñu jot seen kër ñi ci gaañu am nañ juróom-ñaar ñu ci am gaañu gaañu ñetti ay damu damu lañ ñi ci des ñi seen tànk yee dangu ñii seen ginnaaw yi ñoo dagg arrestation yi jàpp nañ lu toll lu mu néew néew fukki nit jàpp nañ leen yóbbu nañ leen ñun nag fii mu toll nii ñi ngi ci évacuation yéen a ko gisal seen bopp ambulance bi ñu bi mujj bi ñi ngi koy xaar pour bu ñëwee évacuer place bi ci des loolu mooy li nga xamante ni état du Sénégal defati nañ ko ñaawlu nañ ko ba ci kanamu yàlla ñaawlu nañ ko trop trop trop parce que li ñu bëgg mooy lenn nañ ñu delloo suñu suuf ñun ñaanuñu saraxuñu dañoo liggéey daan suñu doole ba jëndoon ko tabax ko ñu toj ko ñun nañ ñu delloo suñu suuf bu ñu delloo suñu suuf ba pare décision justice yi nga xamante ni am na te justice dëkk bii moo ko atte génnee ko ngal nañ ko dogal